الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على رسول اسمه احمد nabiyun qatruhu amjad xalilun xulquhu asad min alxallaahi burhaani wa radiya allahu an taaji alcaarifin mumiddu kulli awliya arrahman abil abbaasi bayti alwilaayati misbaaxu zalaami wa miftaaxil kunuuzi wa xatmul kulli lil xiini rabbi sarax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafhaqu qawli mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ci ndigalu suñu sëriñ bi suñu kilifa gi suñu wéeruwaay bi suñu soppe bi suñu xarit bi di sëriñ Cheikh Omar Kayre ñu ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla taxawu zahiran wa baatinan la Baye Mbaye Donde wayoon sëñ Babacar Sy wax ni lu Maodo def benn rekk fekk na Mbaye Sy moom jéggi fukkam waaye lépp lu Seydil Xaaji Malick wala Cheikh Alxaaji Ousmane Kayre naaloon ci këram te këram mooy kër yàlla doon na wax ne li xew fii mooy laxaw xaw Tiwaawan rekk kër gi santul Kayré yàlla la sant ku yàlla ñor ku nekk ca nga bokk waaye lépp loo xam ne góor gi ma nga ca woon di ko dundal ci biir ak ci biti sëriñ Cheikhou bi mu ñëwee loolu dafa gën a dëgër loolu dafa gën a yokk loolu dafa gën a rëy loolu dafa gën a taaru loolu dafa gën a rafet ñu ñaanal ko ci biir ak ci biti ñaanal rakkam yu tedd yi nga xam ni ñoo ko jàppale ba loolu mën a am ci seen ndigal mooy Serigne Babacar Kayré di Seydil Jamil di Serigne Ousmane ak ñiñ ko seqal ñépp ñu sant leen bu baax gërëm leen ñaanal leen yàlla yàlla ngeen yàgg jiitu ñu yàgg topp ci seen ginnaaw njaboot de lu koy dundal mooy wéye ndigal ñun bëgg nañ toujours di jot seen ndigal di ko jëfe ndax loolu moo ñuy dundal yàlla na yàlla taxaw leen ñu yëkkati kàddu ci tuuru ngiraaneen yépp bu ñu ko tuddee tudd ki waroon a yore kàddu gi di alxaaji njóogu mii nga xam ni moom moom la ngiraaneen dénk seen kàddu ngiraaneen nag dafa yaatu dafa am ay club yu nekk ci biir waaye bu équipe nationale daje muy Nguiranéne ñu sant ko bu baax gërëm ko gërëm suñu kilifa ñun ñépp alxaaji Modou Mbow nga xam ne lii yépp moom la ñu sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla ak mbokki ngiraaneen yépp ñoom ci seen kàddu lañ ñuy yëkkatee suñu kàddu gi di ci jiital nag ci nuyoo yi ak ci ziyaara yi suñu sëriñ bu baax bi suñu soppe bi suñu xarit bi suñu xuratul ayni di sëriñ Seydi Ahmed Sy bu seex Seydou Mouhamadul Moustapha Sy bu Serigne Babacar Sy bu Seydi El Hadji si ñu ngi lay nuyu di la ziyaara ziyaaratul istimdaadiya di bég lool bërki démb ku ñëw jëppal soxol dana sedd lool la fa daje man ngaa wax ni fu mu daje du yomb ay baayam ay magam ay rakkam njabootu Seydil Xaaji Malik yépp daje ba barab ba sax xajatuñ fa Sëñ Habib ne yii yépp nag lenn rekk moo ko may siidi mooy ko ndax ku nekk lu la yëngal waaye li yëngal ñépp ba ñu bàyyi lépp wuyu ci siidi Ahmed jikkoom la gis ngeen léegi bi mu ñëwee fekk way juram ci kaw dafa ne ci suuf lay toog loolu nag njàng la ci ñun si yal na yàgg te sax yaakaari baay yi ak yaakaari maam yi ak yaakaari njaboot gi yal na ko yàlla saxal ba yàlla won baay yeeg maam yeeg njaboot gi lu kawe seen njortu ci yow di nuyu mbokk yu baax yi nga àndal suñu doomu bàyyi di Serigne Mansour Sarr nga xam ni moom ci kër gi la bokk ñu nuyu ko ziyaara ko nuyu suñu bàyyi alxaaji Cheikh Omar Ngiraan niñ ko waxee sànq ci ngoon rekk luñ ci delluwaat waaye ñu ñaanal ko yàlla yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla may ko wér yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla wattu ko ngiraaneen moom lañu dese yàlla na ko yàlla dëgëral mu nekk sag ci ngiraaneen di sag ci Tiwaawan wax naa sànq ne suñu baay day wax ni Tiwaawan day la fa am bari na man nag bëgguma fa daraja bëgguma fa taalibe li ma fa bëgg lenn rek la mooy dimbali siy jël xaaji ci daara ji te ku ne xam ne ne mu ngi ciy bay waaram ba mu mat yàlla na ko yàlla taxawu ci biir ak ci biti di nuyu di ziyaara suñu sëriñ soxna Asi bu Seydil Xaaji Malik As Malik bu Seydil Jamil bu sëñ Babacar Si bu Seexul Xaaji Malik ñu ngi lay ziyaara bu baax ci ndug ci làmmiñu kilifa yi di am kontante bu baax ak mbégte ci teewaay bi di dellu di am kontante ak mbégte bu baax ci bërki démb ci seede bu rëy bi la sëriñ Siidi Ahmed mi seedeel ci kanamu àdduna yépp mu nekk loo xam ne bàyyeeg maam yi ak mag yi ak njaboot gi ñépp ci bég si yal na yàlla saxal tabarkeel ngi lay nuy di nuyu mbokk yi nga àndal yépp moom de xam naa dafa guddi ni ko sëriñ bi waxee ne nañ gàttal fa tabaarakallaahu di nuyu xaajim Moussa ñang di la nuyu di la ziyaara bu baax ba nga jàppee ba léegi bés bu ne day gën a rafet tabaarakallaahu yal na yàlla dëgëral suñu soppee suñu xarit njaay Mouhamed njaay Jamil yëngal na tànt bi ba mu yëngatu yàlla na ko yàlla yéwénal ay mbiram yépp ci biir ak ci biti bu ñu leen nuyoo rekk ñi ci taabal ji yépp ñu baal ñu rekk ñu yóbbaale leen fa tabaarakallaahu di nuyu dawaayir yi fi teew yépp di ci jiital daayira aram ngiraan mooy borom zone yu rafet yii tabaarakallah daayira ngiraaneen ñu nuy leen ziyaare leen ndokkeel leen ci bés bi bés bi bu jotee dootuñu noppalu ñu am jàmm lu dul tabaarakallahu lépp yéwén si nga ñaanalal ñu leen yàlla yàlla taxawu leen ci biir ci biti nuyu mboolem daayira yi nga xam ne ñoo jóge jaxaay nga xam ne ay section yu bari lañ def ay convent bu mag yenn si fi fa tabaarakallaahu ngir yàlla ak dundal mbokk ngir yàlla ak sàkku yiw waaye ngir yàlla ak sëñ kër Kaïré mi ñu sant leen bu baax gërëm leen ñaanal leen yàlla yal na yàlla fay leen ñu nuyu bu baax sant daayiratul fulkun najaa nga xam ne bu ñu tuddee xaaji moxtaar ngom rekk tudd fulku najaa yépp ñu sant leen ci taxawaay bi nuyu daayira muxtafiina bi asaaril abaai wal ajdaad fa tabaarakallaahu sëriñ Mansour Fall ak mbokk yi mu àndal yépp sëriñ Moustapha si yabal leen ñu ñëw ànd ak suñu soppe bii di xaaji Mansour Dieng ku ko xam-xame kook sëriñ Moustapha fa tabaarakallaahu ñu sant leen gërëm leen ci teewaay beeg taxawaay bi yal na yàlla sàmm leen ci biir ak ci biti moom de xam naa buñ ko bëggee lim du sotti ñu nuyu daayiratul bulwaar gërëm leen bu baax sant leen tabaarakallaahu yal na yàlla taxawu leen ci biir ak ci biti nuyu suñu mag yu baax yi suñu kilifa yi xaaji bilaal xaaji xuseynu ngiraan tabaarakallaahu xaaji asfaal wax naa ko sànq ne ko fépp fu ñu tuddee alxaaji Ousmane Kayre tudd sëñ Babacar Mbuub kañ ca war a teg mooy sëñ Modou alxaaji Modou Fall boo demee Kayre daa fa fekk Baye Fall Kayre boo demee Mbuub daa fa fekk Baye Fall Mbuub fa tabaarakallaahu ci ñu sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla ci taxawaayam ci biir ak ci biti fa tabaarakallaahu muy suñu mag di suñu goro tabaarakallaahu ah di nit ku yàlla baaxal nuyu moor nuyu mbokk yépp xam naa ngeen baal ma de. li duuf ci nag bi yépp xajul ci cin li te waxtu wi moom lañuy ñuy njëkkanteel ngi leen di jéggalu di sant ñépp ci taxawaay bi di gërëm ñépp ci taxawaay bi sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu keroog ba muy jullee alxaaji rawxaan ngom cappaal dane rawxaan mii de mag mu yàlla gërëm la mag mu yàlla gërëm nag lu waay laal ci moom rekk bokk ci ngërëm li te góor gi seexal alxaaji Ousmane Kayre mag mu yàlla gërëm la lu waay laal ci moom rekk bokk ci ngërëm li te ngërëm la kat mu nga tàmbalee ci sëñ Babacar si tàmbalee ci xeetu lijaasa ba mu ko jox ak ca façon ba mu ko ko joxee waaye yamu ca moom alxaaji Ousmane Kayra ak sëriñ Babacar Mbuub bi ma tudd ak alxaaji Modou Fall mii sëñ Modou Fall ñu gën koo xam ci Baay Fallu sëñ Babacar Sy mas nañu def convent bu mag bu jógee ndar ñëw Tiwaawan jógee ndar ñëw Tiwaawan dëkk bu ñu romb jël dëkk ba ànd ak ñoom góor gi nee na boobu ñoon ñoom dañu xamagul ay turu ay fédération ay union ak yu mel noonu waaye nee na bu ñu ñemee wax ni daanaka ñoom bokk nañ ci ñi ko njëkk def te ñoom ñetti mag ñooñu ñoo ko coordonné woon fu ñu dem bàyyi asfal mii mooy dem ci chefu ga chef de gare téléphone baaba kër si ñu ko ñu ngi ci gaar sàngam keroog ba ñu wàccee Tiwaawan sëriñ kurdi yu gay sëñ mammaloo ak mag ñu baax ñooñu la leen sëñ kër si booleel ñoo leen teeru ca gaar ba dalal leen kër peer ba ñu ñëwee ne ko si ñaanal ñu ñun kër suñu convent bii ñu def am na ñu ñuy tëkku sëñ kër si ne mag ñooñu na ngeen xam ni may seen ndey maay seen baay danaa leen boot dinaa leen rogganti tabaarakallah ku sëñ Babacar si nekk sa baay nekk sa ndey boot la rogganti la Cheikh Seydou Mouhamadul Mansour xalifit bu yàggul bii yal na yàlla yokk leeram nee na dama toog ci sama néeg ba mu yàgg rekk yëg ni ñi may wis ndox mu sedd bi ma xoolee fi ndox mi jóge ma gis ne pikin ñetti mbaar la ndox mi jóge mu dawal limousine am ñëw fii ne góor gi ndox mu sedd mi ngi may wis yëg naa ko fi sëriñ kër si tollu woon ci man ciw ñaan yow rekk yaa ma ci doy bés sëñ Mansour ñëw na fii jël ko ànd ak moom yóbbu ko ci kër yi am yépp ne ko kenn doyu ma ci ñaan yow rekk yaa ma ci doy kër gun dem góor gi nee na dañuy wàqi ba mu xóot mu ñaan ñu suul ba guddi mu doog a ñëw sëñ Mansour bi mu fi ñëwee nee na ko yow sëñ kër ci gërëm na la seex Seydi Mouhamadul Moustapha si gërëm na la man seex Seydi Mouhamadul Mansour gërëm naa la yooyu gërëm yépp sax de boo ko amul woon fii nga toll ci yàlla rek loo ñaan yàlla yàlla def ko góor googu nag ku yëngu ci mbiram ci biir ak ci biti faw yàlla yëngu ci yow yal na yàlla yëngal yépp ba yépp sotti ñu ngi leen di jéggalu jéggalu yàlla ñi ñu waroon sant ak ñi ñu waroon gërëm ñépp ah tàmbalee ko ci siidi saddeex mbay géey ibu jaane seydil jamil nga xam ne ma njaay mbuub ñoom ñoo doon coordonné di Jamil Fall ak xale yi ñoom Abdou Khader Mbay Njaay tabaarakallaahu euh, Baye Mbay ak ñëpp rekk ñu santi leen gërëm leen. tabaarakallaa tabaarakallaa dafa gudd. waaye alhamdulillah ñu ngi leen di jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullah. النبي إمامنا بتنازل لإفادة الأخلاق بالورد الجليل فأجابه بمخالفي صافي الرداء فجزاء ربي بجزاء أجرم إن كنت بابا للنجاة واقيا متعلقا بجنابنا الحامل عليه فنعم وإلى أي فضل كان لي في ذا فقال لكم كذلك في الجنة طلب المقالب استحق حبه فدمانه بجميع ذلك ينجلي أيوة يغني إدخالنا في حجري من ذاك الله ترتب ولا تشكو بذلك ينجلي تصف شيخ تيجان من الرقي استمداد كل الأولياء سلم ولا تنكر مقال الأكمل لا تحملن سيود هازيدنا فلذاك كانت في اكتتام وفلي كما يظن كرامة هي فتنة فاحذر وحذر باقترار رجالي من ينكرن ابن التجاني فمنكر خول التجاني الرضوان عن النبي الأودمي تصب شيخ تيجان لقيتك هل من مرب حواك مع الله كمثل شيخ تيجان لا لا كم تعليم في سماء منير وليس كسم في المثال كل المريدين دون سنيا لسيدين أصبوا عيالا فكان قربا وكان غوثا وسار ختما على رجاله كسب شامتي جان قيتك يا شيخنا يا احمد يا راهن المتشابه الركبان نحو الجنان الروع والريعان عبد الألوكة من أسير العلاقة خاف الأواجب مدة الأزمان عبد البيان لأهلها متشايفا بالوافدين والجملة السكان نولى المقادر الحكيم إذا ينال عرفوا بأحوي بعذا ثاني لا تفسرن توسلا وتضرعا وترقخا بالعين والتيجان سشط شام التيجان سلمى وسل زيادة بتقرب كزمن قرابة سايق الأوتاد بحر تموج قدره ويفيد من إذن مكيم باري الأكوان يغني الخواسد إذ أتوا للآلين مقتضيم الأطراف والمرجان يلحم بدت تغي وراه بتعين من كل ناء نار ولاد وتشوشت عدوى وشوى وطام بالأقطار والبلدان كم شاهدت عين الحقيقة عينه وتكشفت عن فدي النوراني شام التيجان هذا الذي إنسان عين حقيقة متصرفا بحقائق العرفان هذا الذي كان المميد وحائلا شيخ نتيجا مموي بيت الولاية فاتي البيباني هذا الذي خد نال رضوان علي بمنظم ثمانين آيات من قرآن شام التيجان من ولاية ما خفى أمر به ختم النبوت جد والآن ومجموع البحرين عين عناية بوراستي من منحة الرحمن شيخ تيجان وتواترت رتب من بعد ما رتب بلا عصر ولا كتمان شام تيجان وأحمد بن محمد نجل الولي شيخ تيجان مختار نجلي جدي أحمد داني شيخ تيجان هذا سليل محمد ذا سالم حقا أبو وقدوة الأزمان شيخ تيجان قدوة ورغبة وعمدة وعمدة وتحة إخوان ورحمة وهداية وكفاية ومزية ومحنة الإنسان فاقتص المولى طريق شات يكفي السلوك به عن البرهان من كان يدخله ينال بشات من غير عبد الله ولا ميزان فصلاته بصلاته دامت على عين النائم وسيد الأعيان والراد وردي ميني لا تزجر ولا أزني وقم بياسياني من كان يكفي فلا يربي وتواسقوا بلا قوى رباني خلق الملوك خصائص الملوك ànd ak waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk fii ci tànt bi di nuyu jëmm ju baax ji toog di oustaz Ngiraan di ñaan yàlla yàggal ko fi may ko wér wérle ndax bokk na ci mag ñi yàlla baaxal baaxee leen it xam-xam fa tabaarakallaahu ñu yàgg dimbali njaboot gi njaboot gi nag yaatu na di nuyu kilifa kër gi Cheikh Omar ak i rakkam fa tabaarakallaahu di ñi nga xamante ni at mu ne daañuy ñëw yëgal ñu programme bi dale ko ci Sidi Diop mi ma booleeg waa kër gi tabaarakallaahu ak daam kayre ñoom Babacar Diallo yàlla yàlla wutuñu ci fayal ñu leen ndax at mu ne ñu ñëw yëgal ñu bi at yi wees nag dafa fekkoon ñi tukki am na ci boo xamante ni nag ñëwoon naa fa tabaarakallaahu fekk fi suñu doom sama sëriñ muy sëriñ Sidi Ahmed si Jamil yal na yàlla yàggal ko fi moom it may ko wér wérle yàlla xam na ni dama ni woon Sidi ni ko su ma fa fekkee sëriñ Sidi damay dugg nuyoo rek roccikuwaat dem tabaarakallaahu ñu ngi nuyu Serigne Moussa ñun ak ñi mu àndal ñépp ko ñaanal moom it yàlla yàggal ko fi ni nga yàlla yàggal la fi nga yàgg bégal jaam yi ak ñi lay jàppale ñépp loo tiim yàlla na mokk loo way yàlla na dugg ci xol yi bu ci duggee yàlla nañ ko jëfe buñ ko jëfee yàlla na yàlla nangu di nuyu alxaaji njaga njaay di ko ñaanal moom it yàlla daf ko mag tabaarakallaahu mag mu barkeel magul islaam magu tariqa bi di nuyu suñu maam alxaaji malik jóob moom it fa tabaarakallaahu di boroom xam-xam ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi moom it may ko wér wérle bi may ñëw nag maa ngi ànd ak ñenn ci jamiya Cheikh na Ahmada Tidiane Chérif ca Thiaroye sur Mer ñu ca des ñëpp ñuy xaj jaañ kàññ xaj ma yaasin njoon fa tabaarakallahu ñëwoon nag wuy si woote yàlla di soxna yu tedd yi fa tabaarakallahu di leen ñaanal yàlla ñoom it yàlla barkeel seeni sëy ci ñi ko am ñi ko amagul yàlla may leen ko ñi am njaboot yàlla barkeel seeni njaboot ñi ko amagul yàlla may leen njaboot gu barkeel it jubal leen ak seeni boroom kër yi jubal leen ak seeni njaboot yi ñi ngi santati yàlla mi nga xamante ni baaxewaat nañu ba ñu ñëwaat ci weer wu tedd wi di weer wu màgg ci lislaam ak li ci xew ci ay événement ak li ci yonent bi sallallahu alayhi wa wax ci ay ngëneel yépp yàlla baaxewaat ñi ba ñu mën a ñëwaat ci bërëb bu tedd bi fa tabaarakallaahu fekk si njaboot bu tedd ak jëmm yu tedd di njabootu radiyallahu anhu alxaaji Ousmane Kayre doon ku yàlla baaxal tax ma ni gox bi am nañu chance ba am ku mel noona waaye jugu fi waaw qad maata qawmu wa ma maatat fadailuhum moom bokk na ca ñooñu ndax bàyyi na fi njaboot gu sell njaboot goo xamante ni ña ngay topp xatawaat ya yàlla buñ ko teg gi mukk tabaarakallaahu di nuyu di ñaanal njabootu sëriñ Moustapha Sy Jamil yépp radiallahu taala anhu mu doonoon kenn ci kër maamam Cheikh Seydil Hadj Malick Sy radiallahu di nuyu di ziyaara xalifaam bi ko fi wuutu muy alxaaji Mouhamadul Mansour si Jamil ak i rakkam yépp yal na yàlla sàmm leen aar leen barkel leen la ci mag ña ci mbaax ijaaba ak xabul yépp yal na ko yàlla dotti seen kaw moom it mu yàgg jiite njaboot ji bi jaahi seydil wara sallallahu alayhi wa jëmm ju tedd jooju de ku baax la woon mas naay waxtaan ak moom ndax saa yu ma daan génn di dellu ba ma tolloo ci njàng nekk bitim réew musuma dem te tàggu jiwuma ko bu ma daan dem nag daf may yàpp benn bi mu dénk ma ni ma fexeel ba ñetti jiim yi na nekk ci yow doomu nit ku baax bu ne war naa fonk ñetti jiim yooyu te ne ci ma ni ko yooyu yan la mu ni ma jub juboog say mbokk jaamu yàlla te loolu yaakaar naa ni mooy saadatu daaray ni jub jubook say mbokk jàmm yàlla ndax kat wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun boroom xam-xam yi dañuy wax ni bul laaj te bul yéemu aleyna waaleykum salaam ci koo xam ni dañoo wax ni xam-xam ba bari na wala ñu ni kii kat homme de culture la walla ñu ni kii kat xel mu ñaw la yore wala kii kat ku am xibra la waaye nee nañu booy laaj walla booy yéemu na la borom ngëm gëm-gëm ku am ngëm gu sell yéem waaye na ca lënkale jëf jëf ju yiw kon mu mel ni xam-xam de baax na xel mu rëy baax na waaye ku am imaan bu wér boole kook jëf ju yiw te sax ca moo ëpp doole yooya boo ca boolee yooyu nag muy bénéfice mag ñi nag ci foofu la ñu tegoon seeni tànk moo jur lii tey moo jur jataay bu sell bi fa tabaarakallaahu ñun ñu baax ñi di ko teewe at mu ne yàlla na sax te at mu ñëw yàlla na dàq ba ko wees li bàyyi abdu daan wax radiallahu anhu tamassaku bi ma tamassaka tamassaku ayyuhal abnaau bi ma tamassaka bihil ba woy wa jeex kon ku xeeb li fi mag ñi bàyyi pert nga fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyaamal amalan saaliha wala yushrik ba aaya jeex kon nañu bàyyiwaat xel ci njaboot gi nuñ leen di yare damay faral di wax ni bari na koo xam ni yarul dafay yafal waaw te yafal nag am na lu ko gën daa gis ku bàyyi njabootam di daw ba du tal yar njabootam lan lay wut alal di wut alal di wut alal ba dee ñëw taloo yar sa njaboot musiba la ndax wërsëg yàlla ko yor te waxkat ba dafa wax ni ziyaadatul mari fi dunyaahu nuqsaanu wa ribxuhu gayra maxdil xayri xusraanu kon nag kuy fàggu na nga fàggu yiw ndax laneen loo fi wut lu dul loola daf lay lëjal te perte nga lay perte nga perte nga rek la lay jural yàlla nañ ci yàlla musal ñi gën góor góorgóorlu ci ni ko mag ñi waxe laabal xol yi laabal ruu yi luñ koy laabale bi zikri wa tasbiix kon lu am solo la te zikr mooy nga sàkkoo teewal as lëf ca la ngay jàng ndax doomu aadama matul di takkook jàng alquran ndax zikr la fexe ba yi nga xamante ni moom la yàlla bañ ñu fexe ba teqalikook loolu ndax doomu aadama matul sàkkoo jub fu ñu toll moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni miracle dëgg-dëgg mooy sàkkoo jub ca ba ngay wéet ak ba ngay wéttaliku yàlla nañ ko yàlla defal su ko defee di dox mbokk bàyyi xel mag ñi fonk kilifa yi bañ di gàggantikoo ci mbedd yi bañ di parparloo di taqook alquran fu ñu toll ndax la gën a néew ci li jàmm bi di jàng ci bés bi wala taalibe bi li muy jàng mooy ñaari xisib kon dañuy takkook istixfaar bari na kuy wut tur yàlla wu lay indil di dem ci talaasim yi di dem ci lu ne tur yu gudd yooyu mag ñuy wax te bari siin lool waaye fekk na ni yaa ngi romb loo xamante ni moo gën a gaaw yooyee yépp ndax sayfun qaatia muy istigfaar la mu la mu composé ci turu yàlla yooyu ngay wut yépp mi ngi ci biir kon boo koy jàng rek yaa ngi jàngale turu yàlla yooyu yépp te yàlla nag ku ko woo ci woowin wu sell mu wuyu la ku bëgg a gaaw àgg ci yàlla nag dangay jaar ci gën ji mbindéef sallallahu alayhi moo tax ma ni tiijaan yi li ñu am sax xamuñu ko li sëriñ Mansuur borom daara ji radiallahu anhu wa rahima daan wax fanweeri paanu ndox ku koy sangoo bés bu ne ndax doo set boo ca boole yi ci des nag moo tax lu jar di góor góorgóorlu di bàyyi xel la as jaam as gor ndab lu mu tiim bu lekkee tuuti xel ma war naa teey warul rekk lekk ba ñëdd bool ba jug fa loolu góor du ko def moo tax nañu ñaan yàlla gën ñu dimbali ci la fi mag ñi bàyyi woon ñi mën ci teg suñuy tànk ah loolu nag ku ca sax damay wax ni sañ ngaa yaakaar àjjana nag nekkul ci loxol kenn mi ngi ci loxol yàlla ku la ko dig te jaarul fa ñu war a jaar bul yaakaar liggéeyal wata sànq ma ni fa man kaana yarju liqaa rabbi fal yaamal amalan saaliha fonk leen seen julli juróom ñun man génnewuma ci sama bopp maa ngi ci biir di ko joxe ci waxtu wa ah boo ko deful ci waxtu wit bu ngant amee nga fay ndax fay ngëne la ngi ci di ko defee ca mbooloo ma rawatina ca jàkka ja ku ci jël tariqa bi it nang ci góor góorlu bu baax bañ koo sàggane waaw ndax li mu ëmb ci yiw kenn xamu ko waaye yàlla nañ yàlla fayal mag mu mel ni maam Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu ndax li mu fi bàyyi fajar gu ne gox boo làmb ci Sénégal daanaka daa fa dégg naasirul xaq bil xaq timis gu ne daa ko dégg loolu chance la moo tax ñuy wax ni nit ab taalibe dana am ci barke sëriñam lu sëriñam amul woon doom ju baax it dana am ci barke baayam lu baayam amul woon waaye nag bu mu ko bu mu ko tiitaroo de ndax ma nga ko amee ca barke baay ba mbaa barke sëriñ ba kon nag nañuy gën a góor góorlu fa tabaarakallaahu ci jaamu yàlla door a mën a yaakaar bañ a it naagu ndax yàlla moom innahu waasiul magfira moo tax gaa yi wax ni laa tataraddad fi l awdati ila allah mahma lawasatka alxataaya wa zunub lu tax ñu ni fa alladi sataraka wa anta taxta saqfi almaasiyati lan yafdaxaka taxta saqfi almaxfira kon nag yàlla ku yaatu njëggal la ku yaatu yërmande la yàlla nañ yàlla boole ca ña muy suturaal mel na ni wax jaa ngi bëgg a yàgg te ñi ngi war a dellu <laughs> ndax ki ma indi dafa war teel liggéey ñu nit dañuy am rendez-vous médical te dafa teel mënuñu woon ñàkk ba ñu ñëw dañ ne woon dañuy ñëw ci réception bi yàlla def dogalu ko ñi bëggoon teel a ñëw ci guddi gi waaye gis nga waxtu wi ñu agsi ndax amoon ay gan te faw dellu am pour mën a mos as lëf ndax bañ a rate rendez-vous ba ñu am ëllëg incha allahu taala waxoon naa nag ñoom siidi ak xaaji daam ni leen kii taxawee guddi gi di suñu doom di suñu sëriñ muy sëriñ Sidi Ahmed si Jamil ku ko matale mat na sëkk bërëb bi ba tax na fu ñooñu fu ñu ne kër gi yëpp lañ fa nekkal fu ñu ne kër gi yëpp seen xel dal ndax seen mbaax seen yaru seen teggin ak seen xam-xam waaye ñu jël lépp jënd ko taalibe moo tax dama leen doon wax ni dootuma xànd ci ci tànt bi ndax fii am na boroom waaye léeg-léeg ñuy ñaan mën leen ah kon de su ma demee fekk ko fa damay ñëw rek saafonte rek daal di rocc ko bii nag xam naa dafa agseegul moo tax ma doon mën-mën waaw waaye gëmuma li ko ñaanalit yàlla dolli ko sutura may ko mu mën a def guddi gi ci lu kawe njortam ànd kook yéen yàlla na bàkkaar yépp fëggu te fëggu na sax ah xadisul qudsi la kat yonent bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam ndax béréb yu mel nii ku ci ñëw yàlla jéggal na la laa yashqa jalisuhum su ko defee nag dama gàttal wax ja rek muy xadis bu xaw a gudd di ñaan yàlla bu mu nekk suñu mujj gàmm ñi teew ko ay ati at ànd ak wér ak wérle yàlla faj aajo yi biir ak biti teggi tiis si wéral yi yàggal fi suñu kilifa yi bépp kilifa diine bu nekk ci gox bii ñu naan Sénégal yal na yàlla yàggal la fi te barkeel la waaye ñu ñaanal suñu sëriñ muy alxalifatul am sëriñ Cheikh Ahmad Tijaani al maktum yàlla yàggal ko fi lool moom it ànd ak wér ak wérle yàggal fi ay rakkam mu yàgg leen na jiite defal ko it njaboot gi yépp ñaan yàlla boole ñi nag ci njabootu mam Cheikh Sidil Haaji Malick radiyallahu anhu ku ci nekkit fa nga aju ci beneen njaboot yàlla na la yàlla boole ca a gën waaye ñun fii ñu bokk yal nañu yàlla boole ci njabootu maam Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu suñu liggéey yépp yàlla na ko yàlla tas jiil ci safaxatu maam Cheikh Seydi Hadji Malick yéegi ko ci yàlla bu ñu yàqu yàlla bu ñu yàqule yéen a waale ci réew mi yàlla na yàlla bay njiit yu jub te bëri yërmande yal na ko yàlla def waaw réew yi ñuy sëqal frontière it yal na yàlla saxal jàmm suñu digganteeg ñoom yàlla bu ay yàlla bu fi ay am yoon la xew ci yeneen réew yooyu yëpp it na yàlla sotti ci ndox mu sedd guy bi jaahi saydil wara sallallahu alayhi wa sallam ah loolu dal ci gàttal laa ni woon naa ko yëkkati barkeelu ko ci guddi gi fa tabaarakallaahu bu sëriñ bi ñëwee nag ah àggali li ci des yëpp ma doon ñaan rek xanaa ngeen ñaanal ma rek ma yeewi maa ngi nuyuwaat ñëpp nag ku ma tuddul sa tur rek yàlla tudd na la Babé baat bi yàlla na jóg محمد أحمد الماحي وحاشرنا nabiyu marhamatin tawbin wa multahami irhad li taybata laa ta umma siwaaha irhad li taybata laa ta umma siwaaha fa asaaka an tahdaa bi ru'yati taaha الحبيب قلوبنا تهواها وإذا وصلت لهكت حلم تربها هو إسمد العينين وهو جلاها الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب wérle mission maamam bi nga xamante ni moom moom la tàmm pour doxal ko yàlla na ko yàlla téeñal boppam yàlla boo jéem utali yàlla na la yàlla mottali niy yoon mucc ak muccale wér ak wérle ijaaba qabul yàlla na ko yàlla defal si bijaahi seydil wara sallallahu alayhi wa sallam nag daanaka dama xaw a sonn trop sax maa ngi essoufflé wu tuuti moo tax dama doon rocc ku di dem noonu tabaarakallaahu barkeelu nañu waxtaan nañ fi tuuti jiitu la su ko defee nag dama leen di daal di delloo micro bi rek te ngeen ñaanal ma yàlla rek ma daal di rocc ku ndànk ngir mën a dem ndax suba dañuy war a teel a xëy incha allahu taala waaw incha allahu taala ñi ngi jéggalu mbooloo mi nag bu baax bu ñu sañoon nag toog ak yéen ba fajar ndax jar ngeen lu ko ëpp waaw ni ma ko doon waxee rek di gën a ñaanal yàlla njaboot gi fi fi ñu teg seen tànk foofa la yàlla nañu topp rek xatawaat yi fi woy jur bu baax boobu bu tedd bi ma doon tudd léegi muy alxaaji Ousmane Kayre bàyyi fa tabaarakallahu ak ay kilifaam ak ay sëriñam ba ca sëriñ bu mag ba Mawlana Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu anhu ba ci ay kilifaam na mu taftaloo ba ci sidna Cheikh radiyallahu anhu ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu ñu mooy wala dégg ba leen jëm yàlla nañu jëm bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon nag fa lay yemale kàddu yi di wax ni hada wa billahi tawfiq walhaadi bi mannihi ila sawaai tariq wasalaamu aleykum wa rahmatullah